sunu bës TV jàmm mbokk internet yi topp chaîne bi di suñu bës TV gannaaw manifestation boo xamante ni woote woon nañ ko niki démb ak tey jilee ñoom ñi lëkkata di waa F24 waaye nag lu ni mel préfet bi daf ko gàntaloon ba waral sax ñoom ñi la ña ngay naqarlu bu baax a baax préfet bi gàntal ga nga xamante ni daal dina koy gàntal seen manifestation yooyu li nga xamante ni bëggoon nañ ko niki démb ak tey jilee ñoom waa F24 nag ci xabaar yi nga xamante ni jot nañ ko ñoom ñu lëkkata lii di manifestation ne sax jamono ji dañ koy tegandeeguñ ci suuf ngir rek daal dee may sénégalais yi ñu daal dee wàcc li nga xamante ni li ko teree ñëw bareetul ay semaine rek moo des suñu digg ak moom muy feetu ko tabaski gile tey dafa nekk loo xamante ni jamono ji sax moo gën a yitteel sénégalais yi ba waral ñoom ñi le kët ñu daal di tegandeeguñ seen ko manifestation yooyu li nga xamante ni bëggoon nañ ko kon jamono ji ñoom dañ ko rek daal teg ci suuf waaye nag ña ngay ñaawlu a manifestation yooyu la kat ndaxte kat ñoom jàpp nañ ni rek préfet bi amul benn sunu bës TV wóor boo xamante ni eh, te war teg na ko rek ngir daal di mën a mën a interdire seen ko manifestation yooyu la ñoom waa F24